a illallah ilaha illallah mais fan yii jógee naa ko effectivement après mais fan yii la jógee. كيف يحيونك؟ يحيونك كيف حالك؟ لا إله إلا الله cheikh bi nee gannaaw bi ñu sant yàlla nee na des di ko sant ne di julli ci sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne mu ngi nuyu way juróom yii mu fi fekk mu ngi nuyu sunu sëriñ bii ñu fi fekk maa ngi nuyu sunu soppe bii ñu fi fekk ne di nuyu waale njaboot gi yëpp nag di ko teg nag ci sa loxo. kaddu yi nag du gudd. ndax dañuy jéggalu sax ci temps bi ñi temps bi nga xam ne ñu ngi koy jël ci sa jëmm ji waaye moom yàlla moo def mu am cofeel gu ci sa jëmm boobu sax toogagoon ak ci xilaafa gi ne mu di ko suuxat nag saa su ne ne sa doom ju tedd ji muy sëñ Amidoun xam na ci dara ne bi ñu nekkee Nigéria moom moo yombaloon ba ngeen am jotaay yéen ñaar ne li ko gënoon na marqué ci jotaay bi ne hôtel ba ngeen nekkoon nga dal fa ne directeur hôtel bi ne def ko wax benn bis. ni ko sëriñu Sénégal bii di fi ñëw. nit ku mag ñëw na fi ba tey ci réew mi. nee nit ku mag ñëw na fi ba tey ci réew mi. waaye ni hôtel bi amee affluence. nee na ni hôtel bi amee affluence. dugg bi ak génn bi. nee dugg bi bi. ak kilifa yi fay ñëw ci jamono jooju. ak kilifa yi nga xam ne ñu nga fay ñëw ci jamono jooju. nee Nigérien amu ko. nee Nigérien amu ko. mës a ñëw aussi si réew ma amu ko. beneen ku mag itam ku fa mës a ñëw ci boobu réew amu ko. wax na ko. nee ma est-ce que ci Afrique bi ñu nekk. nee nee na nee na ko est-ce que ci Afrique bii ñu nekk. ci makkaan yu mel nii. ci makkaan yu mel nii. est-ce que sax am na lu mel nii luy xew feneen su moom. nee mu laaj ni est-ce que lu mel nii mi ngi xew feneen ci ñëw gi nga xam ni ñëw nga foofu. tax. moo tax mu nekk sag bu mu nekk sag bu rëy ci képp kuy ci képp koo xam ni ab sénégalais nga ne sa taxawaay ak sa sa bañ injustice nee na ak sa bañ injustice ak ni nga bootee ak ni nga bootee képp kuy sénégalais képp kuy sénégalais nee yemale lu ñun ñëpp loolu moo indi loolu moo indi suñu dugg fii suñu dugg fii yomb yomb loolu moo indi loolu moo indi dugg keneen dugg keneen ak fa mu bokk ak na mu fa bokke ne yomb nag ci yow ndax cër bi nga taxawee ne da nga noo téye ne sans calcul ndax yàlla yàlla ne su taxee nag nga téye ay jàmmam ne nii rek ngay doxale mooy doxalin bii ngay doxale ne du yàggal kàddu gi doom bi ma doon ci yow. ne daa ñëw yeesal nag doom gi nga xam ne doon na ko ci yow. di la ñaan di la ñaan. saa su ne saa su nga wéy nga wéy. di ñaanal jàmm. di ñaanal jàmm. ci sunu réew bi ci sunu réew bi réew mi soxla na ko soxla na ko. dafa am benn kilifa ne dafa am benn kilifa gu mag. nee na ma àll. nee ko àll. buy tàkk suy tàkk. wala mu nekk ci yoonu tàkk. wala mu nekk ci yoonu tàkk. kenn waru fa ji. ne kenn waru fa ji. moo tax ñu ñaan la moo tax ñu ñaan la. ñaanal réew mi nga wéy nag di ñaanal réew mi di daaneel kaddu gi di daaneel kaddu gi ci di la ndokkeel te di di la ndokkeel ci bis bu tedd bii ñu jëm waay waay nag ci bis bu tedd bii ñu jëm muy juddu yonent bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam muy juddu sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam di la ci yaakaar nga ñaanal ñu yàlla waay waay waay waay sëriñ bi ne di la ci yaakaar nga ñaanal ko yàlla mu mucc nga ñaanal ñu yàlla waaye nga ñaanal ñu yàlla itam nee mu yokk suñu cofeel nee ci sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nee loolu rek la lay ñaan nee su toogee ak yow nee yëg-yëgam yëpp dafay yëg ni nga mel ci moom ak connexion bi nga am ak rasulillah waay waay ñun njaw ni suñu toogee ak yow nga nangul ñu doon suñu bay nga nangul ñu nag doon suñu bay ne bis yu mel nii suñ ci tabbi ak mbégte mi nekk ci yow ak mbégte mi nekk ci yow dañu lay ñaan nga yóbbaale yokk ne suñu cofeel ne ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam waay waay ne papa ñu ngi lay jégglu waay waay bu wér a wér a wér ci kaddu yi mu di la sant bu baax di ñaan yàlla nga yàgg fi mu ànd ak wér moom sax moo du wax ne la yal na yàlla mottali sa naal yëpp ne yal na yàlla mottali sa naal yëpp naal yi sax mat na ne naal yi sax mat na ne képp ku ne ci réew mi mu ngi lay sant mu ngi lay sant ci sa taxawaay képp ku nekk ci réew mi képp ku ne ci réew mi mi ngi rafetlu ni nga téewee sénégalais yi téye ko tamit téye ko tam africain yi ne ne wax na benn bis benn nit mu ni ko ñun de suñu réew suñu muusoon tuuti. waay waay mënu ko ñun suñu réew suñu muusoon tuuti. dañu waroon développer. dañu waroon a développé le tourisme religieux. le tourisme nag religieux. ñu fexe ñu fexe. ba am benn compagnie aérienne. ne ba am benn compagnie aérienne. boo xam ne ajjuma bu jot. boo xam ne ajjuma bu jot. dina mun a lii. dana mën a lié Medina Baye ak dëkk yi nga xamante ni ak dëkk yi nga xamante ni taalibe Baye yi dañu fa bari ne loolu su jàllee ne suñu fexe woon ba organiser benn grand congrès international pour la paix ne dippee ko Cheikh al Islam ne dana suqali réew mii ñu ne ndax ñiy ñëw ñi ci ëpp mi koom lañu boroomi koom lañu te suñu la dégloo te suñu la dégloo ngay ni ngay ni ngay waxee ne ni ne ni ngay waxee ci réew mi lu ñu am yëpp ne li ñu am lépp daan ko indi daan ñu ko indi fii maanaam mu mel ni gàncax. mu mel ni gàncax. bu ñuy ji su saxee ne su saxee. dana doon dana doon naataange. naataange ci mi fépp ci réew mi nag ci réew mi. sant naa la bu baax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. bisimilah asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. bisimilah mbokk yi sëñ bi mu ngi leen nuyu ku si nekk si turam ak santam si nuyoo bu si nuyoo mooy salaamaaleykum wa rahmatullah. maa ngi sant si seen teewaay fii. nee na mu ngi sant si seen teewaay fii nii. yu tedd yi. si bés yu tedd yu màgg yi fii nii. ngeen jël seen tànk yu tedd yi ngeen jël seen tànk yu tedd yu am barke yu am xéewal yi fii nii ñëw seet si ko tey ji. wane ñu ne ñoo yéen a bokk. ngeen wone seen cofeel ci moom wan ko ne ko ñun ak yow ñoo bokk bés bu tedd bi ñu jublu si. ñun ñëpp ñoo ko ñun di wane ne ñun ñëpp ñoo ko bokk. baat yu tedd yi nga xamante ni Cheikh Alassane wàccee na ko fii léegi. nee na daf ñuy dëgëral wax yonantu bi sallallahu taala alayhi wa sallam ne wut leen yiw ne wut si borom kanam yi nga xamante ni yàlla dafa def si ñoom yiw ñu ngi koy gis nii nee na sëñ bi nee na mi ngi gis yiw googu noonu si Cheikh Alassane Sène alhamdulilah sëñ bi nee mi ngi ñaan yàlla si mbaaxam yàlla yàlla dolli dëgërël la dolli la leeru xel dolli la leeru xol yu tedd yu màgg méngoog sa ruux yokk ci ak lim fi fekkoon mu defaraat ko mu gën a baax yàlla na la yàlla defal loolu bésu tey bi bésu tey bu màgg bu tedd bi dëgg dëgg ci seen teewaay. dëgg ci seen teewaay yu sell yu rafet yi. bés bu boo xamante ni bu màgg la bu exceptionnel la. bëggoon sa waxtaan bi. bëggoon na ci sa waxtaan yow Cheikh Alassane. waxtaan bi mu wax waxtaan bi nga xamante ni wàccee nga ko fii. ñëpp dégg ko. ñëpp dégg ko képp kuy doomu aadama di noyyi dégg waxtaan bi. ndax waxtaanu espoir. ndax waxtaanu espoir la. waxtaan doole nit fit ne ko demal ca kanam. waxtaan boo xamante ni ku ko dégg soo amutoon fit da ngay am fit pour jëm ca kanam. waxtaanu xam-xam waxtaan boo xamante ni la dañ koo teg ci xam-xam. waxtaan la boo xam ne exemple bu mu la jox rek daf koy tëral ci yoo xam ne da fay gis ne moo fa nekk. li nit waxtaan boo xamante ni exemple lu mu wax day jël exemple teg ko ci leer loo xamante ni doomu aadama foofu rek la war a jubal pour jël fa njëriñam. yaakaar paase wut foofu. nee yaakaar paase wut foofu. dekkal xolu nit si yàlla ak yaakaar. dekkal xolu nit ñi si yaakaar paase wut foofu. ak yàlla. ak yàlla. paase wut foofu. paase wut foofu noonu. kon ñu ngi kontaan bu baax. nee na kon sëñ bi si Alassane nee na ngi kontaan sëñ bi nee na mi ngi kontaan bu baax. ci waa dëkk bi yëpp itam. ci waa dëkk bi yëpp tamit. ñu ak man di wax ci suñu làmmiñ. saay bu nekk ñi ngi ànd ak moom di ko waxal ci làmminam. mu ngi leen wax marhaban bikum bienvenue si seen kër si seen mbokk ngeen fi fekk gis-gis yu yaatu yi yëpp. mi ngi yaakaar si seen gis yu gis-gis yu yaatu yi yëpp. Euh, économique. Sénégal économique. fuñ ko war a tabaxee. fuñ ko war a tabaxee. dëgg am na yu jiitu nit ñi xam nañ ko ba pare. sëñ bi nee na dëgg la am na yoo xamante ni jiitu na ko fi nit ñi xam nañ ko ba pare. waaye façon bi nga waxee. waaye façon bi nga xamante ni moom nga waxee. parce que tabax économie réew te boole woo ci diine. parce que tabax économie réew te boole woo ci diine ji. tabaxoo dara tabaxoo dara. bu jiitoo nag. su diine jiitoo nag. yàlla mooy àggali tabax. yàlla moom ci boppam mooy àggali tabax ba. yow commencement rek nga ci am. ñun doomu aadama yi commencement rek lañ ci am. ak yéene ak yéene. waaye yéene yi nag yàlla dafay tànn ba gën a rafet rek ñu ko. waaye yàlla dafay tànn la gën a rafet ci yéene gi rek mu dafal ñu ko. ni nga waxee nii ni nga waxee nii ci diine ak euh, tourisme religieux. ni nga waxee nii ci diine ak ci tourisme religieux. amul dara lu gën a kawe ci. amul dara lu gën a kawe loolu woo nit ñi ci jëmee leen ci yàlla. jëmee ci diine. jëmee leen ci diine. ndax nit ñi. ndax nit ñi. comme ko xamee. comme ni nga ko xamee. jaxase nañ lépp. jaxase nañ lépp. boo waxee boo soo waxee tourisme. kenn du gis lu leer. kenn du gis lu leer. boo ko jëlee soppi ko waaye soo ko jëlee soppi ko mu nekk religion. yaa ngi tabax loo xamante ne lu bees tàq la. yaa ngi tabax loo xamante ni bu tabaxoo waxuma la jullit yi rek waaye ñeneen ñi nga xamante ni nekkuñ jullit sax dinañ si gis seen bopp parce que kooku noonu dëgg-dëgg mooy jullit mooy defar loo xamante ni lépp danañ ko jëriñoo te yii nii bokk na si say xalaat te doomu aadama lépp lum xalaat rek xamal na yàlla moom moo ko dugal si xolam nee na si kàttanu yàlla mu ngi yaakaar di ñaan pour loolu noonu lépp mën a réussir incha allah réaliser wu. nga jéem koo taxawal. nit kuy jéem. nit kuy jéem. wóolu. yàlla wóolu yàlla si li muy jéem. kenn mënu jaar digganteem jaar digganteem ak moom li muy jéem noonu te ba du fa yegg incha allahu taala. bu dogoo rek. bu dogoo rek. yàlla teg loxoom ci loxoom. yàlla teg loxoom ci li muy dox ci loxoom incha allah. yal na la yàlla barkeel yal na la yàlla dimbale yal na yàlla ubbi xoli nit ñi ñu dégg sa wax ñu gis say jëfi tamit ndax nga nekk modèle boo xam ne ndax nga nekk modèle boo xamante ni li bàyyi doon gént si dundam li bàyyi gént si dundam. nouvelle génération bi ma yaakaar. génération bi mu bàyyi yaakaar. te nee na loolu la bëgg wane. ne maa ngi nii feebar màgget moom cheikhul islam aw ma kattan waaye waaye sama liggéey yëpp sama liggéey yëpp sama liggéey lépp mooy liggéeyal yonantu bi sallallahu taala alayhi wa sallam su ma ko defee du ma ko defee xeex du ma ko defee xuloo waaye dinaa oote bil xusna si rafetal wal ilm ak ci xam-xam ci xam-xam. ci loolu. mi ne ci loolu. nouvelle génération. mi ne ci loolu la Baye bëggoon wax ne dana indi beneen nouvelle génération. nouvelle génération xam nga lu muy tekki. yaakaar na ne xam nga bu baax li muy tekki. mooy génération bi yëpp. mooy génération bii nii yëpp. tunuur beneen lañ yaakaar. beneen lañ yaakaar. boo xamante ni dina mën a tabax. boo xamante ni dana mën a gént. boo xamante ni dana boo xamante ni dana am fit. pour soobu ci mbir yi. ndax xam ne dara du baare lu du yàlla te yàlla ndax xam ne dara du baare lu dul yàlla te yàlla la wóolu. te loolu noonu yow yaa ngi ci. nee na loolu la la xamee ba mu dajee yow ca Nigéria. ba mu dajee yow fii tamit liñ ko njëkk a wax. mooy fàttewut ko alhamdulilah mu ne mi ngi lay yaakaaral yàlla tamit bu baax a baax ne ndimbalam dana ñëw ci yow mhm. nee na nee na xar yu jekk yi yu rafet yi leetaru yàlla leetaru yàlla la pour joxe yaakaar mu jëm si yeneen xol yi. pour joxe yaakaar mu jëm si yeneen xolu jaam yi. alhamdulilah yal na yàlla defal ñu. kontaan nañu sëñ bi nee na kontaan na bu baax a baax.